ba ma dalee dajale ba ma ko seen fii laa commencé jaay di jaay ndékki dund sama kontaane lu ma am ma def si ba ma jënd dajale ba jënd sama terrain ma jaay samay or sama papa gaañu ma jël sama dono papa ak samay or di liggéey di liggéey di liggéey ba am benn ba am quinze millions tabax sama kër di préparer ne fi ak un mois ma dem tout ci fa ba pare ñu ko wax xey xëy rek ñu lo ma ne ma dañuy daj sa kër ma taxaw ñuy daaneel sama kër ci sama kanam ba ma dalé liggéey ba légui luma am ci la ko def taluma lek taluma nan yére bu baax sax dama ko sol su ma rombee nii jaay ñu ne kii dafa dof fekk dofuma damay dajaleel samay njaboot ñu jël sama alal yàq ko ci zéro sama tool rek lañ jëkk a jël muy Matar Faye muy daaw jëg bu njëkkee ñëw moom lañ njëkk a moom lañ njëkk a daaneel mu naqari ma loolu boobu ba léegi teenee ba tool tool ma taa taxawuma fa ndax xool bu jeex te tool bi si laa taan suturloo bala maa jaan jooy si laa taan suturloo si meññeefu mango bi ak bu jot dama si am deux millions ba ñëpp biñ ma fekkee sa tool ba ma toog ñun ñu ngi daaneel tool bi néegu maa jógee si tool bi néegu maa jógee si tool bi ndax alal dafa neex alal ma toog ñuy daaneel ñuy daaneel ñuy daaneel gàncax ga gàncax gi ma ko defoon si laa daan def sama dépense kenn sama bagage laa ko dépense daal di sant yàlla ak yonent ba sëñ Babacar si lan ma ni yàlla jàppal yonent bi Seexul Xalifa amatuma dara yaakaaruma yàlla laay yaakaar ak yonent Seexul Xalifa amatuma yaakaaruma fi toog ma xëyee damay toog bu ma xëyee fii laa toog amatuma fenn fu ma jëm. Macky Sall nag mooy borom réew nan ko doon jàppale te ji nañ ko gën a bëgg a jàppale waaye nag au condition ndax Abdoulaye Wade ma ba muy dem te xam ne bii jël na titre foncier bii dafa defal dëkk yi nga xam ne bi ñoo nekk biir kenn ku mënoon defal la titre foncier ak numéro yëkkati benn décret boo xam ne bii dañ li nga xam ne bii moom la ñuy béyee ak yëpp nañ ko réserver hmm. décret baa ngi nii hmm. kon misaal bu fi nekkee bay dem hmm. mu ñu jox ñu Amadou Dia Amadou Ba ñu nangu ko bëgg koo jàppale te fi mu nekk lu mu xat war naa def décret boo xam ne bii su fekkee mënu na àggal lii itam mu def décret boo xam ne bii Abdoulaye Wade defoon ñii nga xam ne bii dañoo dëkk di jël suñu suuf si mu arrêté leen tey ba xam ne bi maanaam lu ñu am dëgg loolu nag boo amul lii na leen leer ne duñu ko bàyyi tey duñu ko bàyyi ëllëg ndax fi ñu taxaw fi nekk jël nañu lycée def na ko saa bi jël nañu dañ jël pôle avocat bu fekkee ne senegal dëgg rek moo fi am lii nga xam ne bi moom la yi sooy sooy bu rek day mujj nekk njariñ fi te yaakaar naa ko ndax daf naw tooñ te lii nga xam ne bi topp naa ko kay yi mu amoon baaxul maire nag xaw ma signé na ko xaw ma signé ko ndax comme moo nekk ci kilifa ci sone bi képp koo xam ne yaa ngi dugg ci réew mënoo mënut ko umpale mënu koo umpale. dañuy ñaan nag bu fekkee te kilifa yi dégg nañu te xam ne mooy indi jàmm bi nañu bàyyi xale yi waaw ndax dama jaral sama bakkan wax naa ko muy dégg am na loo xam ne bu delluwul ginnaaw bu ko xale yi faj maa koy faj ba mu jël sama mu jël sama bakkan ba mu jël bakkan